xam naa ni engagement maanaam njafal ci politique mun na ànd ak ngor mun na ànd ak dignité mun na ànd ak li nga xam ne moom mooy moral maanaam li nga xam ne ci xel bu sell lay demee kon ñun ne mooy suñu responsable mooy suñu leader dinañ war a a jokk ci kàddu yooyu noonu fàttaliwaat ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk ci suñu kuréel boobu noonu lan mooy fondateur élément fondateur yi nga xam ne moo nekk suñu kii parti boobu noonu ñëpp la mais département Dakar bi nga xam ne moom ñun ci lañ bokk lépp liñ leen xàmmeewoo woon lépp liñ leen doon nawee woon mooy solidarité maanaam jàppalante dimbalante bi nga xam ne moo amoon fi ànd ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon yëngu ci suñu kuréel moom may APR l'alliance pour la République au niveau du département de Dakar loolu nag dañoo gis que ni bi ñu defee juróom benni at ci nguur gi ak léegi dañoo gis que ni yooyu dañoo commencé di dem mu commencé di ñu réer lépp li gis mooy ay xaritoo ay ay ay teg ay dil ku nekk teg sa côté xool ñen ñoo ànd ak yow kan mooy sama xarit pour que mu mën la jàppale nga ñi si des nag xaw ma mu may def ak ñoom peut-être que damay def guerre de positionnement ndax kii bu amee benn poste de responsabilité peut-être que mën na ma jële fi ma nekk yooyu yëpp dafa jëm si li nga xam ne ñaq gëm yàlla laa ko mën a